mooy ki nga xamante ni mooy nu mu tuddee sax. saa Pekes moo daje ki nga xamante ni mooy Laye Birgili Laye Birgili ñëw na mais saa Pekes dafa am empêchement Ama nag moo ñuy toog moo moo moo tëgg boobu combat fan la baañ de. Bargny la ko tëggee la kañ. 18 le 18. Tëngéej ah. Tëngéej le 18 mbokk yi ñaari xale yooyu ñoo fa jëflante jàmmaarloo fa am na fa yeneen combat yu neex yoo xamante ni nii defe naa ne waa Tëngéej bu ñu ko gisee wala boog bu ñu bu ñu gisee xale yi dinañ xam ne tey bés yi daan am ak bés biiru benn. Ama Dia lañ ci àndil ma ma bàyyi ko mu nuyoo ma doog ñëw ci ki nga xamante ni mooy Laye Bruce Lee ñu doog a wéyal waxtaan wi nuyu naa la. waaw asalaamaaleykum ginnaaw ban sant yàlla julli si yonante bi di gërëm suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Babacar si di santal suñu sëriñ maam Malick si di nuyu waa Tivaouane fi ma dëkk di nuyu waa yëmbal fi ma jóge yëmbal sud di nuyu yi fa nekk yëpp di si jiital le ministre Amadou Hott di si nuyu madame Hott koo xam ne tey jii femme la xam ne tey di jàppale yëmbal sud di si nuyu département bi yëpp ku si mel ni le ministre Assam Diatta nga xam ne tey jii président moom la dénk département bi ñu ngi koy nuyu bu baax l'ambassadeur itinéraire muy Modou benn Diop di nuyu Jibi Jaw suma frère suma leader maa ngi nuyu ñëpp di nuyu responsable yi nekk yëmbal sud yi yëpp maa ngi ziar ñëpp di nuyu waa wasaare fii ñëw si kër gi tey kër gu yaañu ji tey mhm. ñu ñëw dalal ñu fi tey ñu ngi lay di leen sant di nuyu laaj brichune di ko wax adversaire am ñëwul mhm. mais xam naa bu ñëwul tey dina ñëw jour làmb ja mhm. di nuyu suma frère bi ma àndal tey ji nekk sama rak xam nekk suma lépp di ma jàppale tey ji moom laa àndal tey ji ci plateau bi jaar naa ñëpp daal. waxal waxal tur bi. <laughs> non Amadia Junior la. Amadia Junior waaw Amadia <laughs> gis ngeen mbokk yi noonu lay demee andi na ki nga xamante ni mooy euh, booy Pekes ah. Boy Pekes Saa Pekes waaye daa jàpp tur bi sax Saa Pekes ak Laye Bruce Lee mu nekk ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ ndax ku ci nekk yaa ngi toll ci quatre komba defe naa nag boo xoolee palmarès rek war ngaa mën a xam ne ñoom ñaar combat bu neex la te tolloo nañu tamit ci dayoo euh, Laye Bruce Lee nuyu naa la. waaye ziar naa la Ouzin di la bëggee di sant yàlla di julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur mhm. di sant sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di mhm. sant sama wasila Baye Cheikh Mamour Insa Diop mhm. di ñaanal sama waajur bu jigéen fi mu jëm gënal ko fi mu jógee di ko ñaanal di sàq ci moom ñaan ak ña mu ak ña ka fekki dafa mel ni dafa mel ni xel mi dal na de. xel dal na loolu sama yëf la sax xel ah, dal na. <laughs> mais tey nga ñëw doo def signature yàgg sa digganteeg Boy Pekes. Mhm. xam nga booy bi. Saa xaw ma ko mais mbër bu nekk sama yoon la. bi mu jëlee avance bi yàggul parce que avance bi man ak beneen mbër la woon. Mhm. guy gi trois. ñu mhm. dem ba ci biir mu sàq yi man mais miis naa loolu noonu. lu muy daw ci yow. waa mais dama di xale fere ba yàqu di saw meew di day yàpp. waaw waaw. damaa juddu timis fer gee jongu samedi wala dimanche. <laughs> sama xol yëpp moo ngi yow. maa ngi ñëw. <laughs> yegsil <laughs> di nga dégg nooy. saa pegees nag. Hmm. jël na avance bi mais dina daanu jëlu bu ko musta daan waxuma arende waxuma ay mbapat de contact sax laa lay wax. dina daanu. Ousseyn ma àdduna maa ji daa ko bëre. te le 18 dinaa ko wane incha allah. billaahi maa kopp doole. billaahi maa bu doole maa gën a nekk xale. ku dàq xeex. maa dàq xeex double moteur laa. sans radiateur du ma fëq du ma bënn senn. maa ngi nuyu Niass ci Seras moom may woo rek ndeysaan maa ngi koy nuyu sama jaaykatu xar bu mag bi kenn du moom nuyu naa la bu baax a baax maa ngi nuyu waa gétt gi yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax des fois fa laay dem toog waxtaan xam nga ñoom dañuy seetaan Wassare Lamb bu baax a bu baax. waaw des fois maa ngi nuyu sax kii euh, Taxe Taxe moom moo ngi foofu sa Seras maa ngi koy nuyu bu baax a baax mais euh, ñu gis booy bi booy bi ndaanaan la booy bi mën na bëri mën na xeex la moo bi saa gis dawee nga nangu jël avance parce que mënuma lii daf ma yàgg dal quoi ma préparé làmb dem ba ci biir. Mhm. fi ma dëgg ñu ngi ñu ngi dégg li dañu dem ba ci biir adversaire yi saaki quoi mais ma nekk ci entraînement depuis combat bi yàqu mu des ay quinze jours du genre dama koy jël parce que moo taxaw sama yoon dama koy faxas dama koy daan par force. fan nga teg loolu ci mystique ci doole. Mhm. wala fan nga teg loolu. ci liggéey laa ko boo bookar nee na ma mbër day yeewu quatre heures du matin mhm. ñoom ñoo dëkk Tëngéej mhm. mais chaque quatre heures du matin barki maama su jàng maa ngi ci dini bëri moo may woo taal otom sóora ñu ànd dem chaque quatre heures du matin barki Mouhamed te ñoom ñoo dëkk Tëngéej nee jege kiiraay la mhm. ñoom ñoo jege foofu quoi man Kër Mbaye Fall laay jógee te dama <laughs> yaakaar ma dëgg la dañ naan mbër da ngay doon mbër ba pare am métier. Mhm. mais yàlla dafa mën a too làmb. dañu mhm. ma am leneen mais làmb la mën a too. te saa yu ma toogee plateau ci interview dama naan àdduna man maa ci dàq bëre kon jot na man ma wane loolu noonu. Ah, waaw moo tax ma ne la saa pekees bu taxawee leen rek ay mun a am aar bi ne mu taxaw ci kaw air bi duñu bëre. mais bu dawee sax daan ko dàq jàpp. bu ñu dalantee ma daan ko jël bu ko mbër musta daan. bu xeexee. dama koy duma faal moo ma yor box raag moo ma gënal ma am. te nga foofu sa baa ma ñëw. Ama ñu gis ci journée yi lu ci ëpp Ama Dia saa bu tëggee ñu ne Ama Dia fan la loqatee booy yi damay reculer tuuti ñëw si combat bi nga xam ne tëggoon ko ko mu dox ci diggante Ardo ak Saba. nga def ko Ardo waaw Ardo ak mbañ Kayre ñu gis nga def ko mu nekk combat am yaa ngi ko jàppoon mercredi non seulement mooy nekk jour ouvrable mais supporters yi dañoo ñëw amateurs yi ñëw. xale yi bëre ba ñëpp kontaan naka naka ngay def ba mën a dajale yooyu xale. Ouzin dañuy sant yàlla bu baax. Mhm. di wax tey Ama Dia mënul dara daa am ñoo xam ne dañ koy jàppale nekk ci staff bi. Mhm. ku si mel ni le grand Jal Oni Mar Mbay Pape Diouf. Mhm. ak tey jii Matu nekk suma jigéen di ma jàppale ak Amet comprendre nga tey jii ñoo nekk sama gannaaw di monter xale yi. tegoon naa fi le 9 mars Mbagne Kairé Ardo. Mhm. làmb joo xam ne mercredi la yàlla yàlla suturaal nañu ba nga xam ne tey jii làmb jooju gis nañ suñu bopp ba nga xam ne tey jii même buñ si amul dara bokk nañ si tey jii saison bi espoir yi. Mhm. làmb ji si gënoon neex. Mhm. mercredi yi nga tegoon ko. loolu rek sant yàlla la dama yàgg si làmb nag. dama rompe ànd ak ay promoteur pendant des années di leen jàppale. kon boog tey su ma duggee si làmb xam booy te ma dëkk banlieue bi. yaakaar naa man booy am supporter jom moo pour ma xam leen. Mhm. te incha allah rabi bu ñu jógee le 18 tëngeej dinañ tëjee sunu sunu sunu saison arène nationale te dinañ ñëwaat si mercredi boobu incha allah rabi. kon doo bàyyi mercredi bi. non mercredi du ma ko bàyyi. lu jos nga def doo dooraat. non moom daa am lu si nekk quoi. Ah. daa am lu si nekk loo ciy def yow. te incha allah rabi. mercredi non yow dafa loo ciy def. daa lu si nekk rek. Ah. te mercredi incha allah rabi dinaa ñëwaat arène nationale tojaat fa. ak yeneen espoir. mais dama gis euh, booy tëgg combat da ngay faral di jël xale yoo xamante nii ñu ci bari ràññewuñ leen mais saa bu ñu ñëwee dañuy wane seen bopp ba promoteur yi dañ koy xëccoo ak yow dañ ci bëgg jotaat sax mu tëla nan ngay def sa digganteeg booy ba mën leen a loqati ci biir ci biir ci biir ci biir mbër yi. gis nga sama journée bi passé mun naa wax ni booy yu ma tëggoon genn wàllu gi yëpp. Mhm. am na promoteur yoo xam jëndal leen. Mhm. te sama journée tëngëj bi. Mhm. am naa yeneen booy yoo xam ne mosuñu bëri. te keneen ku jël ak ñeneen ñëw benn génération ñëw. Mm-hmm. ndax man damaa xam banlieue bi damaa xam booy yi mbapat. Mm-hmm. man sama boo xoolee samay làmb dinaa tëgg cinq combats yoo xam ne booy yi mosuñu bëri. day nekk mm-hmm. diis booy. yoo xam ne mosuñu bëri. te képp ku si dugg dina indi supporter. moom bu keneen jël ak ma indi keneen. man yaakaar naa tey ji làmb ji suñ dem lim Ama Dia booy yu mu jëndee bari na trop. jënd naa fi ay mbër yoo xam ne maa leen njëkk jox combat. ay mbër yoo xam ne seen licence yi man la nekkoon ma jënd leen tey ji ba dégg lu bari. mais loolu sant yàlla la ko quoi. da nga jaam ñoo xam ne dama ko bàyyi ak ñoom mais arène nationale si kàttan suñu borom su ma fay tëj sama saison. di nga ne booy bi jinne la. ma ah, jaa ngi lancé mais euh, li li sama problème mooy la moo tax nga jël euh, laay Bruce Lee ak sa Pekes yóbbu leen ba ba ba Tëngéej bëgg leen fa tëggee lu war lool. xam nga laay Bruce Lee dafa dëkk Kër Mbaye Fall. Mm-hmm. waa Kër Mbaye Fall yaakaar ko. Mm-hmm. mu doon xale dëkk fa di wane ay preuve am. boo xoolee quatre combats la def. waaw ñëw indil ko grand combat. Mm-hmm. guy gi trois lañ ko joxoon. moom muy mm-hmm. préparé ñu dem ba si biir combat bi yàqu moom muy préparé moom mu ne kun ma jox ma bëri. Mm-hmm. mu ne koo xam ne tamit ku am ngor la. ku jàpp si bis bi la tey ji mënoon na combat bi yàqu rek mu demee neneen. mais dafa toog téye ngorom ne man koo ma jox ma bëri. yàlla def ni ka ma ko jox mu nekkoon ikri ñoom. guy gi trois. Mhm. ko contacté ko mu yomb trop. mu nekk combat boo xam ne combat soog la kii quatre combat kii quatre combat. Mhm. tey jii mun naa wax ne ñoom ñaar ku si daan. ay naataangoon lañ. ku si daan rek si kàttan suñu borom di nga di dina sa palmarès dina rafet daal. Mhm. te ñoom ñaar nee naa ku si daan di dem arène nationale. la ma bi dem Tëngéej. bi maanaam suñu taxee na ñoom nañ ñëw tëgg fa Tëngéej. pour tuddee leen bis bi ñu ñëw jàpp si. soit mhm. boobu la ñu am pour yóbbu ko Tëngéej mais Tëngéej ñëpp xam ne stade dafa métti 500000 francs ngay fay. 500000 pour tëgg si stade bi. 500000 ngay fay laa la wax boo amul 500000 doo tëgg. Mhm. ñun nag nekk ñu koo xam ne nag dañuy ñëw rek jaay jaay suñu bopp déedéet. Mhm. te jii du nu amee parrain boo xam ne moom jàppale si stade bi dan koy dañuy dem tëgg foofu. ndax arène nationale moom amul fay. Mhm. tey jii ñun duñ gis arène nationale ñëw di tëgg tëngee ji fay cinq cent mille mhm. kon su ñëwee tëngee rek am na lu tax ñëw tëngee te si kàttanu suñu borom la 18 li nga xam lépp dëgg la waaw gis ngeen mbokk yi looloo waral mu yóbbu combat bi fi nga xamante ne mooy tëngéej mais defe naa ne am na ay xale am na mbëri dëkk tëngéej yu ci bëri si na fi trop xam nga maanaam tey ji mbari yu bëri bëri tëngéej bëri na mhm. tey ji boo xoolee ay espoir rek ñoo fa nekk ay espoir yoo xam ne tey jii am na boo yoo xam ne bëri na deux combats ñuy trois combats am na boo yoo xam ne mosuñu bëri mais yàlla dafa def ni man tëngeej combat bi monté wu ma si dara. dama am ñoo xam ne dama leen ko jox ku si mel ni matu euh, Pape Diouf Baara. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. suma sama sama rakk ji tey jii. Mm-hmm. am Amadia numéro 2. tey moom it mu nekk koo xam ne di si jàpp dëkk tëngeej. ñoom laa jox journée pour ñu monté ko man xam nga la laa si am. defal lii ma def lii loolu rek laa am si journée bi. mais nag moto moom moo programme bi yëpp. ok sa jigéen. moto moo programme bi. dégg nga dégg dégg nga xale nee na sa xuloo waale. di nga si ñaanal réussite totale. <laughs> amiin amiin waaw maa ngi si ñaanal ndax am na engagement boo xam ne. Mm-hmm. tey jii moo ko jël. Mhm. billet yëpp ba mu ñëwee daf kaa nangu si man dama baal baal billet yi kon boog dama koy ñaanal lii mu sumb nii yàlla may ko si réussir total amin amin amin dinaa ñëw ci ci ci mbër yi nga xam comme que yow loo programme bi mbër yi nga xamante ne jot nga leen jàpp ñi xamante ne ñooy bëri ci bés bi dinaa ci ñëw waaw dinaa ci ñëw mais combat nga nga nga préparé ñu dem ba ci dikki bi mu yàqu nangoo génn ci équipe bi ci équipe bi jëlaat fa saa pekkees naka nga na jëflante moom ak guy gu turaa mi daw ba noppi woo koo andiwaat. waaw mais. ajal mi ko tuuti. xam rek ñun mbër du ñuy du ñu yéem quoi parce que dañ nekk ci écurie boo xamante ni ñu ngi tàggat. ba écurie nga nekk. maa ngi jàmm ji kër Mbaye Fall. jàmm ji kër Mbaye Fall. xam di ñaanalaal gars yi fa am combat ay Ibo. Mhm. xam nga ay Alma ay Cité gars yi may leen yàlla may leen victoire quoi. Mhm. xam nga rek Ouzin ku war ñëwee boo wàcc ko. loo war koy xeeb. te sam papa nee na borom biir buy daw boo koy gunge bu dawul bul daw. bu dawul bul daw de. waaw waaw day yëreeku. xam nga laaj bi easiwul àdduna bi dafa gaaw quoi. Mm-hmm. booy jàmb. del mocc say baaram parce que tuuru dafa gaaw. waaw. gis nga booy màcc doo perte. mu. mbër du ma yem ci àdduna. damay sant tamit Ama Dia mm-hmm. bu baax parce que bëre quatre combats. ñu jox la grand combat. dina ma dimbale ñi ma ñi ma narul woon jël ñi ma doon baña a jël dinañ ma jël parce que mu bëri adversaire si làmb. Mhm. di sant Mbaye Thioune. mais grand combat tamit yombul. waaw boo ñu jox la ko. Mhm. waa Thiali est du xaw a diis tuuti. waa yéen wuñ ko quoi. Mhm. parce que ñu ngi suñuy entraînement nu mu waree. xam nga boo ko yóbbu nañu saal bu mool ñuy entraîné. Thier mu ñuy teg ci code ñu ngi jug heure bu nekk di entraînement dañuy woo monsieur le maire euh, Abdou Karim Sall gisaguma ko nag quoi mais damay damay wax euh, homme politique yi nga xam ne ñoo nekk sama koñ période politique bi ñun dañoo sonnoon dañu doon yëkkati dañu woo heure bu nekk pour ñu dem jàppale Abdou Karim Sall mhm. comprendre nga mais instant bi maa ngi woote pour que mu jëndal ñu billet booy yi mun a dem esat ngir yàlla ak yonent bi bu dee ñu ngi may dégg. waaw parce que wasaare làmb moom mala sumbaay jéggi na frontière yi. na gars yi jàpp Abdou Karim Sall dimbali ñu quoi dimbali ñu ku ci mel ni Laye Ndiaye Grandoy Barham Doucouré xam nga ñooñu dañ leen di wax pour ñu dimbali ñu ngir yàlla sa waay jëndal ñu billet yi booy yi mun a dem fees dell stade ba parce que buñ ay booy rek ñooy jóg. Mm-hmm. le reste man dinaa ko gérer quoi. di nga gérer le reste. waaw di bëggee moyen mi ma andi tamit mooy loolu quoi bàyyi joobam affaire yooyu noonu. mais mais mais ci wàllum entraînement. Mm-hmm. ñaata séance ngay def moment bi parce que fi mu toll nii combat bi jege si na. waaw jege si na du ma la nëbbu. trois séances lañ doon def. Mm-hmm. dañ doon yeewu quatre heures du matin dem din bu ñu ñëwee dañuy nelaw ba heures ñu dem musculation. ngoon ñu dem contact. mais instant bi maa ngi def deux séances. deux maa ngi def deux séances saal waaw ngoon ma dem contact waaw. ngay bëre sa premier grand combat euh, ci wàllum ambiance. Hmm. fan nga ci tool parce que xam naa ne. surtout loolu <laughs> bu yàqu moo raw géwél. waaw yow dañuy wenn mais maay mbaru géwél yi. instant mm-hmm. nii bu sabar sàjji woon balaa moo daaneel ma wax la lu muy daaneel. li nga nar a tuus ma ci tuuti. li ma nar a dafa neex. ama dama bëri lu 12 décembre. Mhm. xama làmb ji namuma torop ma ñëw naa leen gëj a gisee. xam nga ne namoon naa la gëj a gisee loolu di ci def lu doy loo xamante loolu <laughs> loolu bu ko xam na day neex. gëj a gise boobu. Mhm. sam benn copain. ñoo ànd mbapat fu ne. Mhm. mu dem Maroc def fa sept ans. mbaa di ñibbisi na. ñibbisi na ma naan ko sooy ana ma sëmbal mu naan eh tey rek lay neex te ñu dagg wàcc lii. wala <laughs> lu garaaw ma ñëw naan ko Aliou Ndiaye eh sib si meew sib meew dama ci naru tuus lu garaaw. sib bu cent franc bi baax dëkk bi. bay dafa jéggi dayu Aliou Ndiaye loolu dinaa ci tuus loo xamante barki maam Assou loolu dina wàcce ama dama taamu fu ma bëre daan. Mhm. soo fa demee nawet day taa. Baléor day def pax moo yow lu la dal. mais Tëngéej nag Tëngéej nag ñoom fi mu nii doyoon nañ ci ndox mi de. lébu yi maa leen gën a lay def. dafa woon ñëw. Hmm? terrain mango bi ma mujjee bëri mbabat bi ma daanee pax la def chaque nawet boo fa demee day. taa waaw barki maam asu ko lu leer. nañ ko remplir. mooy loolu noonu. bu ma naree bëree feneen tamit mooy loolu tëngeej du ma leen baal dina def wax de. mais adversaire bi nga xamante ne woon naa ñëw ñëwul. est-ce du def comme ça waaye est du def comme guy gi. ah tiit naa ji daal parce que mise naa loolu. mise naa loolu sama papa Thier daf naan ma est-ce que doo wàññi bagage yi ma ne ko du bagage. liggéey mooy seekare mbër bi. billaahi walaahi mooy seekare bi André xale laa 94 laa judd. Mhm. billaahi dagguma benn yoon. da ko wàcc. non non lan nga koy wax Sa Pekes. Sa Pekes waaw moom comme Tëngéej la dëkk xam naa ne day xaar rek wala ñu yóbbu ko kër xaar mbay. kon yow kon yow kon yow da fekki moom mooy recevoir. à domicile la. mais dama amoon loolu gis nga booy bu ñuy jógee Kër Mbaye di dem Tëngéej am na benn affaire bu ndaw bu ñuy wax bu istik dangay ngay dégg naan fala fala fala loolu ay code la. non déggu bu ñu jógee Kër Mbaye di ñëw. da ngay dégg ñu naan fala fala fala fala. loolu lu muy tekki. naa wala oh, di ma jëlaat wàll lii lay tekki. <laughs> waa mafia bi déglu ma. Mm-hmm. waa xubbi rubbi dubbi. Mm-hmm. waa Ali Mango yi. cakiri ki ñaama ñur yi. mafia tësa nday bi. kër Mbaye Fall laa dëkk de <laughs> gis ngeen mbokk yi daal Ama Dia daal benn affaire la mais yan booy yan booy yi nga xamante ni ñenn ñi gannaaw yor loolu si bi ñenn booy yi nga xamante ni jàpp nga ñu war ci biir journée bi. yenn booy yi ku si mel di ajal ni Petit Niang. mu nekk école de Mansour Mbaye. Mansour nekk xale boo xam ne tey ji buy jógee rek waa waa buun jóg. Mm-hmm. tey jii war na ci bëri boo xoolee mooy bëri huitième combat bi. Mm-hmm. Petit Niang. Petit am na ci tamit dégg naa rakku gàmmu gay bi da ci bëre. rakku gàmmu bi da ciy bëre moom mooy bëri spécial bi. waaw tey jii ku gis gàmmu gay xam ni tey jii rakam tey ji fu mu fu mu jógee rek waa Tëngee jóg waa Kër Massar jóg waa Bargny jóg. Mm-hmm. tey jii mooy bëri spécial bi. comprendre nga mu nekk ñetti combat yoo xam ne tey jii ku xool bu si nekk am na grand combat. ñett mm-hmm. ga rek. bu ne bu ne bu ne mën na grand combat. Mm-hmm. tey jii boo xoolee Rock Gamou bi dox naa fi combat am bari yoo xam ne tey jii ku ma ko jox mu bañ. te suñu borom tey jii mu dogal tey ji mu tëggu ko tëngéej ko loolu sant yàlla te gëm naa ni te gëm naa ni bu daanee si combat bi. Mm-hmm. nee na si grand combat bi la jëm. loolu la moo wax mu ko. grand combat loolu la ma wax. te nee na laay brichini saa pekes ku si daan dina la jëli. oh daan naa ko mbabat ko laa ko fekk daan ko. daan nga ko mbabat. Lamp Fall doomu aw Diop moo toogoon tournoi bi man maa ko jël tefesu ci tefesu géej gi kay. kon eh, lébu yi lébu yi ah. yabuñu la lañ mais yabuñu la <laughs> dafa dof de. <laughs> gis ngeen gis ngeen mbokk yi euh, noonu la demee mais euh, dafa mel ni parrain bi war nañ koo dugal de. parrain bi sànq ba léegi muy woote. waaw parce que bés bi nag bés bi nag. li naan bés du tuut bés boobu lay tolloon. ndax tey jii nekk na koo xam ne. Mhm. Tëngéej la ne. Mhm. yaakaaru président Macky Sall la. Mhm. nekk ndaw président Macky Sall di def dara lu am xam la Tëngéej tey jii bu fa duggee rek yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. tey jii bu ma duggee Tëngéej ba ñeme fa rek ginnaaw yàlla moom la kon boog tey jii muy préparer combat bi te nee na grand combat bi. ku nekk dina la si jàppale. xaaral ma jox la ko. kilifa gi nuyu nañ la. mbaa yaa ngi ci jàmm yaa ngi direct. waaw waaw waaw. wasaare làmb. ah wasaare làmb. Mm-hmm. ñu leen di nuyu bu baax a baax. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. ñu gis Ama Dia tuddee la euh, journée bi naka nga naa waajee. waaw fi nekk nii euh, tey jii Ama dafa ñëw tënkee dugg fa. Mm-hmm. ànd seeg ñun. pour que le 18 euh, juin. Mm-hmm. mu dëkk mu monté ay combat yu neex. Mm-hmm. vraiment combat yu neex Sa Thiès ak euh, Laye Bruce Lee. Mm-hmm. combat Sa Pekes Sa Pekes ak Laye Bruce Lee. Sa Pekes. Laye Bruce Lee nekk combat yu neex yoo xam ne tey dëgg yëpp ñu ngi koy xaar fi mu ne nii ñëpp moom la ñuy waxtaane. Euh, mu tudd jël nag euh, drapeau bi tuddee ko jean ba Babacar Touré. Mhm. nekk euh, responsable APR. Mhm. en même temps nekk président mouvement Massaer. Mhm. nekk jeune boo xam ne wax dëgg yàlla. liggéey bu am solo si Tëngéej surtout Rufisque Nord. voilà loolu nag bu ñu tuddee drapeau bi nag tey jii moom mu jël ko delloowaat ko ay amazonam. waaw ñi di waajal nag combat bu baax a baax a baax. Mhm. waa Tëngéej naka lañ na naka lañ na abordé bés boobu lutte avec frappe gëj nañ gis ne gëj na am Tëngéej Ama Dia ñoo andi leen ko naka ngeen koy waajale yéen. waaw xam nga Tëngéej moom yàlla dafa def euh, dafa nekk dëkku làmb. Mhm. Euh, comme ku xam ku xam Tëngéej mag ñi xam nañ arène gabar ndooy. Mhm. Euh, nekk arène boo xam ni dëkku làmb la. moo tax tey Ama bo bu duggee rek wax dëgg yàlla wa dugg na si dëkk bu mu war a dugg boo xam ni xam ñu xam làmb lañ. ñuy mm-hmm. waajal nag bés bi. dëgg la. Euh, bi di ko waajal muy Jean-François Babacar Touré. Mm-hmm. ak euh, les Amazones. di préparer une forte grande mobilisation. Mm-hmm. waaw boo xam ni wax dëgg yàlla bis bu si tolloo. bu bés baax dinañ xam ni wax dëgg yàlla. Euh, làmb ji moom wax dëgg yàlla tudde nañ ko ku jar a mhm. lan ngeen di wax ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy bëre grand combat bi ndax ku ne xam ne ne euh, mbër yi dañuy soxla jàppale dañuy soxla ku leen di jënd ay ticket yooyu lan ngeen di wax mbër yi. wala boog lu ngeen leen est-ce que mën nañoo xaar ci ci ci ci ñu tuddee drapeau bi mu mu jëndal leen ay bloc jox leen ko pour ñu mën a gën a taaral bés bi. waaw ki ñu tuddee ki ñu tuddee làmb ji moom yaakaar naa ni euh, làmb ji dina ko fi fekk. Mm-hmm. bu fi fekkul tamit lépp loo xam ne war na ko ci yaakaar naa ni incha allah am na ñoo xam ne day responsable yoo xam ni bàyyi na leen fi. Mm-hmm. Euh, dinañ am taxawaay boobu. incha allah euh. lan wax Ama bi. waaw Ama Dia dama koy wax rek ni ko làmb ji moom pour ñëpp la te la na gën a jàpp. Mm-hmm. te xam ne ñun ay doomu dëngëj lañ te si làmb làmb la ñuy dund. ci làmb te tey lépp loo xam ni yaakaar na ko si ñun mën ko rek ci incha allah ci kàttanu suñu borom dinañ ko def. Mm-hmm. ndax moom bi bàyyi fépp bàyyi lépp ñëw jël làmb mën ni ko tegee yaakaar naa ni làmb jooju lépp luñ si mën dañ ko siy def. incha allah incha allah. ñoo ngi kontaan ci yow di la bàyyi après dinañ gën a déggantewaat incha allah. waaw incha allah waaw. ok jaajëf. mu ngi lay fay mu ngi lay fay bu baax. vraiment di allah dañ ko war a teg loxo nag gars yi ko war a gën a jàppale. dëgg la ndax mi ngi jàppale mbër yu ndaw moom wax dëgg yàlla. Mhm. ok jaajëf. gis ngeen mbokk yi ki tuddee parrain baa ngi noonu euh, jege ñaale moo doon moo doon dugg euh, wax comme grand parrain bi nekk fii mais am na ñoo xamante ni ñoo fi teewal dégg nga Ama Dia li mu wax ci ci ci ci bés bi ñu koy waajee. ak ni ñuy xaar bés bi maanaam yàqam ne bu doon ñoom bu doon seen sago sax xam naa làmb ji doon suba. dëgg xam nga moom dafa am ay amazone yoo xam ne boo xoolee mën nañ deux cent deux cent personnes yoo xam ne yëpp ay jigéen la mm-hmm. ndax boo xoolee affiche bi drapeau bi sax amazone yi ñoo ko wër. Mm-hmm. ñaari mbër yi nekk si kanam moom mu nekk si digg bi ak foro président Macky saal mm-hmm. tey jii même amazone yi sax presque deux cent personnes ñëpp da leen di jëndal ticket. ñoom ñëpp lay jëndal ticket. xam nga tey jii parrain bu mel noonu yombul. waaw ah, parrain yi dañuy ñëw rek ubbi porte am na parrain yoo xam ne dañuy ñëw rek ubbi porte yi nga jàll ñu yëkkati benn enveloppe boo xam ne bu ndaw jox la mais kii dafa ne ma ñi may àndal ñëpp dama leen dagal ticket. Mm-hmm. teewul sama diggante man ak yow lu ma si man dama ko si def kon loo tax ma ne la parrain bi boo xoolee làmb ji moom moo ko defar. Mm-hmm. moo defar làmb ji kon boo ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko xaar le 18 si kàttanu suñu borom. Mm-hmm. mu def mobilisation bu am doole ñëw. jàppale tamit ñaari mbëri surtout grand combat bi. Hmm. lu mu leen mën a jëndal ticket ñu leen ko jëndal ticket pour affaire bi gën a taaru daal. en tout cas ñu xaar ñëpp waa Tëngéej. Hmm. waa Bargny waa Kër Massar waa Jaxaay waa Kër Mbay Fall ñu ngi xaar ñëpp si kàttan suñu borom. Hmm. Tëngéej ko incha allah. Euh, dégg nga dégg nga li nga xamante ni loolu la pare bi wax naka ngay waajalee bés bi ak ñi lay jàppale ak supporter yooyu. waaw dégg naa ko bu baax ñun moom bu desee suñu côté. xel dal na alhamdulilah macha allah mais teewul dañuy woote ñi nga xamante ni parce que ku wax làmb wax jàppale quoi. Mhm. ku wax làmb ku ci mel ni sama papa Thier. Mhm. boobu léegi sonn nga mais dinaa la fay bor bi mhm. yaa ngi woote chaque jour woo Ama woo mais dinaa bor bi nga di gërëm sa soxna xam nga Bokar di la woo di la waat bu baax a baax yow di bëgg sa soxna grand papis man boo ma meree damay damay jaaxle bu ma meree. sama grand nga xam nga di la woo ci combat bi di woo grand Aliou Ndiaye Bas Mohamed bu Saalu Pia maa ngi koy woo bu baax a baax di woo vétéran yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga di la wax ne bii moom dañoo soxla ku ñu jëndal billet jàppale ñu Ibou Balla maa lay woo Petit Balla comprendre di woo sama mag aada di woo sama waa village Diobass di leen wax làmb jaayu noonu waaw saa pekkee jàppal leen ma benn tànk bi rek yéen a ma gën a xam foofu la séeréer mais sim naa nun waaw ne leen làmb jaal mu ngi noonu di woo Pape Sarr sama doom yaay di ko woo bu baax laay jàlloo comprendre na di woo ñi may jàppale yëpp daal bu ma limee damay juum quoi kër gi may yeewoo Ouzin bi may nekk xale laa fa nekk ñoom ñoo ma yar du sama kër yaay du sama kër papa mais ñu ngi may teg ci code xam nga yar ma nu ma war a yaree ba tax na ku ma gis respecté ma quoi. Mm. sama yaay aw Sarr teg na ma ci code sama yaay Fara Amar di ko woo ci combat bi Medoune Amar mu ngi Italie nee na ma fils mu ne ko ah, mu ne ma boo tëddee nelaw ma ne ko kon xel dal na. Mm-hmm. sooy bibi xamal di la woo ñoom mbay ñëpp ñëpp di leen woo. xam nga di woo Papa Mbelle Mbelle fils <laughs> ma sëmbali na ñëw xam hmm. di woo gaa yëpp daal man daal ñu ciy jàpp yëpp hmm. ñu jàppale ma grand combat la c'est la première fois sama ko ñu génne grand combat hmm. ak li ngay dégg ñuy dund ci làmb te làmb daf ñoo commencé bàyyi xel quoi c'est la première fois kon am na benn facette bu ñu war a génnee bu génn am na lu bees lu bëri lu ngeen war a wane lu war a luñu parce que lépp a ngi fi Ouzin. Mhm. su ma la waxee dëgg rek lépp ngi fi. mbëri ñuy bàyyi jël yëpp dinañ ñu jël te dinañu wane suñ bopp di ñaanal écurie bi incha allah samay coach nag di leen di leen di leen di leen bëggee ku si mel ni grand Ibou. Mhm. tons ñu gën ko xam ci Papa Sow Omar Fall kan Kane. Mhm. nga. kii moom gis nañ ni ñuy daj ci ñun. lépp lu ñu tegoo dinañ ko teg parce que ñun ñoo bëgg ndam waaw. Mm. waaw di ñaan yàlla may ma ndam mu doon ndam lu kawe sama njóor di bëggee kii eh, ah. Ama Dia bu baax a baax di bëggee Grand Mbaye Thioune di bëggee ñëpp daal ñi may jàppale quoi. gis ngeen mbokk yi di bëggee ñëpp ñu koy jàppale Ama Dia tamit xam naa ne moom yi fi mbër lay def faw mu sant ñenn ñi gërëm mënu cee. <laughs> santal gërëm ñu yàggatoo. waaw di santaat ñëpp rek di sant sama yaay bu baax. Mm-hmm. di nga wax ñaan yëpp egg si na na gën a dolli ñaan yi di sant suma papa Yoroja taaliba maam Malick borom di Carnot maa ngi koy wax ñaan yëpp egg si na mm-hmm. sant Ahmed mii ma àndal tey ji nekk suma doom yaa am dénk ko ma indi ko si làmb dugal ko si moom it boobu ba léegi mu sama wet lépp lu ma ko wax lay def. Mm-hmm. moom it na si bis bi maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla suñu borom defal ko ko. Mm-hmm. man ba may door ni laa demee woon damaa sonnoon si làmb di topp promoteur yi daaw ma si am 100 francs bu ma organisé pare dem sama yoon di jël sama xaaji yi fay ay nit mais tey jii lépp jeex na. ba léegi maa ngi jàppale promoteur yi mais combat bi dama si woo promoteur yëpp. Mm-hmm. ñëw assister Tëngéej. Mm-hmm. tey nag fii laa xamee samay nit. Mm-hmm. ndax dama daan tëgg arène national am ñu ñëw am ñu dul ñëw. te nag damaa jénn te promoteur bu fi jénn daanaa la fekk si. maa ngi woo promoteur yëpp di woo amateur yi. di woo journaliste yi presse ma kenn. maa ngi woo ñëpp ñëw assister Tëngéej ñëw jàppale ma si bis bi. merew ma kenn nag ku ñëw baax na ku ñëwul baax na mais xam naa nag ñëpp mun ñu ñëw. Mm-hmm. mais képp ku si am temps da nga ñëw assister sama bis ndax am na leen loo xam ne séq naa ko ak journaliste si man ak ñoom. Mm-hmm. maa ngi woo ñëpp daal bàyyi ma kenn di sant waa Yëmbal ministre Amadou ot maa ngi koy woo si journée bi. Mm-hmm. mu jàpp si bu baax a baax. Modou mbenn Diop te ji nga xam ni président moom la sant samp Yëmbal Sud. mu nekk koo xam ne day jàppale ñu di def social maa ngi koy woo si bis mu ñëw jàppale am. di woo kenn koo xam ne si man la muy madame Hott. nekk jabaru ministre bi tey jii ginnaaw yàlla journée bi moo ko sauvé. Hmm. jox na may sponsor jënd ay moyens jox ma. Hmm. kon boog maa ngi koy sant bu baax a baax madame ot lépp li nga bëgg yëmbal. muy la ministre am ko ndam li yàlla na ko suñu borom def si barke yonent bi. yii ñu jëm nii muy élection député yi. Hmm. yàlla na yëmbal sidd jël jël ndam li. madame Ott gis nañ sa taxawaay si yëmbal sidd ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu sama leader Jibi Jaw buur géwal jàpp na si. boo xam ne chaque jour muy wax madame Hott jàppaleel Ama Dia buur maa ngi lay sant muy jabel mbuub maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di sant waa yëmbal yëpp nag yëmbal si responsable yi fi nekk yëpp su ma limee damay juum mais en tout spéciale madame Hott madame Hott yow kenn du yow fi ñu toll nii moom ba mu na trop mais tey ji soxla rek ñu koo fajal comme loolu ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla lépp li nga bëgg si yëmbal si yàlla na ko suñu borom def si barke yonent di sant Ousin Ouzin moom mun naa wax ne maa ngi moom samedi ak dimanche la. Mm-hmm. bés doxul ci suma frère mm-hmm. wax dëgg yàlla di ma conseiller di ma jàppale. chaque jour bu ma ñëwee si làmb mu dékk ma micro ñu kafre loolu jàmm rek moo ko kii. Mm-hmm. tey jii presse bari na fi ñu fi nekk ñëpp laa seex a mais am na ñoo ne tey jii relation bi nga seex ak ñoom. xam la moo tax mais Ouzin maa ngi lay sant di la gërëm. sa site bi lépp li nga si bëgg yàlla na suñu borom def yàlla nekk ay télé télé. si barke man de kontaan naa si yow yëg-yëg bi rek moo am solo. Hmm. te nit boo amee yëg-yëg rek yaakaar naa da ngay da ngay nit daal du xam lu mu lay wax. mais wax dëgg yàlla man sama sama xol li may li may ñaan ni sama xol laa ko hmm. li nga bëgg yàlla na ko defal lépp loo ragal yàlla boo gis. kontaan naa si yow bu baax. dafa am koo xamante ni mënu ma ko bañ a tudd quoi. sama staff maa ngi nuyu ñëpp. waaw hmm. bi nag su ma ko limee mooy lim naa ñëpp. jiital naa si Ahmed Zal Oni Pape Diouf. suma frère suma seex maa ngi koy nuyu jàpp na si combat bi baara. Mhm. mattu mention spéciale. kooku moom kenn la si man Ouzin. Mhm. kooku moom wax dëgg yàlla kenn la si. jigéen ju mën góor la day sonn si man. Mhm. mook sama la Kewel Info. day sonni si man di sonni xam nga rek joxuma leen cent franc. mais yéene gu ñu am si man pour ma am pour mu am réussite rek. xam nga yàlla na suñu borom defal di nuyuwaat Fatma ci suma rek di ko wax balaa déwén yàlla ko yàlla may borom kër. yal nag yàlla daa war moom ak pël dañ leen puus nañ leen ba sonn mais nee leen duñ dem pël sama doomu ndey <laughs> ah di nuyuwaat sama idole Assane Ndiaye Bawol mhm. maa ngi nuyu bu baax mhm. day wax journée yi mu si yàlla ndax laam ko nekk dafa am idole mhm. mais yàlla dafa leen Assane Ndiaye sama idole la suma xarit la suma lépp la di sant Kanji Kanji production daf maa jox sponsor <laughs> jàppale ma sponsor la ma jox waaw <laughs> la xoolal li may wax nii. cinq cent mille la yëkkati. cinq cent mille. la yëkkati jox ma. barki alxuraan laa la wax. dëgg la cinq cent mille la yëkkati jox ma. Mhm. ne ma maa la ko jàppale pour l'instant ba jour combat ba. Mhm. di ko defal nag promoteur yëpp nekkul man kese la koy defalee. Mhm. mu ngi koy defal promoteur yëpp. Tange maa ngi lay sant di la gërëm di sant Sam Mbaye. Mor Mbaye Ngéwal gi falu Ndiaye ñëpp. promoteur bi daal maa ngi sant di leen gërëm su ma limee damay juum. Mm-hmm. di wax maa ngi jox rendez vous ñëpp le 18 tëngeej. billet yi nag 2000 francs la. na de ma kenn. naa ah. tooñ kay moo la tooñ. waaw Ousmane noonu la demee di woo sama tons xam nga tonton Abdou. di woo l'international Fadi Sarr. Mm-hmm. naan ko gëj nañ déggante trop. loolu tuuti waaw. gëj nañ mm-hmm. yow man ak yow ñoo far waa làmb ji mi ngi noonu. di woo xaritam William. di woo Mamatar borom pentance comprendre di woo Fallou Espagne dama naan ko yow ñoo mbappatandoo ñoo defandoo lépp. Mm. kon ñun bu ñu amee combat dañ lay foqati. Mm. da nga war a génne xaalis bu bëri teg ci taabul bi. Mbisaan borom Dubaay. Mm. comprendre nga. di woo ñu ciy jàpp ñëpp ñëpp ñëpp daal ñu ñëw jàppale ñu ko quoi Fadi maa ngi lay woo bu baax a baax baax di la bëggee di la ñaanal jàmm fi nga ne. waa di woo waa Kër Mbaye Fall yëpp. ne leen ñu waajal laamu ji waaw. lépp yemb na xam nga ñu jël bi yi dem stade bégal promoteur bi bégal àdduna yàlla may ñu dem waa ci kàttanu yàlla quoi. Mm-hmm. gis ngeen mbokk yi tey looloo fi amoon ci mooy Laye Bruce Lee ak Sa Pekes mais Sa Pekes jotul ñoo xëy na peut-être dafa nuyu Amadia bu baax a baax di ci nuyu staff bi nga xamante ne moom la ci liggéeyal ñoom Ahmed Matu ak képp koo xamante yaa ngi ci biir staff bi rek Fatma Dia yéen ñëpp daal ñun sax ñoo ngi ci biir di leen jaajëfal di leen jox beneen yoon di leen jox rendez-vous nag le fa nga xamante ni ca Tëngéej na ñëpp ñëw ndax ay xale la yoo xamante ni ay ndaanaan lañu ay xale lañ yoo xamante ni bëgg nañu làmb lépp loo xamante ni dafay taaral bés lépp loo xamante ni muy bëre bu neex tuus boo ñëwee di nga ko fekk foofu ci stade Tëngéej ba dinañ leen jox dig daje beneen yoon beneen jàmmaarloo ak yeneen bër jaa ngeen jëf si